الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه وآله جنا ونوي مبوك يبدل زيار كن يغي نوري دي ايغر يسير سير بيهم تامل لنكو نانو تحاو سير الله تي تير بيهم جواهر المعاني أمنا سخ منا يتحاو سير الله تي تاريخ بي أكتي يغي نحن نيو تنيو نو دون سخ تي جواهر المعاني كسي وعبالا ببقنين لير أمبير يو خبني تاني سوري بيهونا Euh, ba ca jiitu mooy ne la chèque dinañ jël si ñoo ngi ci benn par benn ci képp koo xam ne jug nga di lëntal euh, ci téere boo xam ne waa ahlu sunna ñoo ko bind di ci wax yoo xam ne dafa juwóog dëgg di wax wax yoo xam ne nekk loo xam ne lu weer la ñu di ñëw daal di koy leeral bi nillahi subhanahu wa taala muqaddim bañ defoon ne ñu ngi ñëw ñu ngi cee ñëw waaye dañoo gis ne nekkatul nekkagul priorité ñu gaawantu ca donte commencé nañ ko nag suñu neexoon ñu génne ko def nañu audio yoo xam ne mun naa génn dama gis nañ bokkon kay taxawé té liggéey ba ñu def amna solo mi ngi leer nañ kon mané gawon kon jaruma ci yakamti amna wéré mo wala def muy bi ni kon mën nañ ci ci bi té bi moy priorité ndax téré bi ni di jawahirul maani mo ñëk taqdisul ashkhas téré bi di jawahirul maani ñi koy top top ñu taqdisul ashkhas téré bi di jawahirul maani su mabbe lepp luy pass passu ñuko gëm daal mab waaye taqdiisu ashxaas demoon sama màbb te incha allah mënut a màbb ndaxte ku bind fa mu ko teg mooy alxuraan sunna te loolu du màbb waaye demoon sax wala farat na mu màbb dara du mab ci salafiya ka ko bindut su demoon yàlla na ko yàlla subhaana taala sam ba màbb ba bokk ñu daal di wane ne moom sax la mu nekkoon du salafiya wala mbirum téere ba dëppoolu salafiya loolu du wàññi dara salafiya waaye lii nga xam ne mooy Jawahirul Maani ku ko bind bis bu daanoo lépp seeni i pas-pas daal di daanoo solo. kon taxaw ci bii moo ëpp priorité fuuf koo xam ne dëgg mën a tax a jóg euh, nasiha jullit mën moo tax a jóg bëggal jullit ñi yiw mën tax a jóg bëgg dëgg moo a tax a jóg kon taxaw ci téere bi moo lay yitteel fuuf taxaw ci beneen téere bu melut bu melut nii téere woo kon boole loolu yëpp ne mbokk yi li koy leeral mu naañ te man dama jàpp ne taq du change classe mu amatul lenn luñ ci mën a leer dafa leer naañ donte la ma wax dinaa ci delsi commencé naa ko sax nag ma génn ko waaye damay gis damay nekk damay la moo gën a importance muy taq di jawaahirul maani ba sori suñu paree sagam kay yoon demul ci benn te ñu ngi fi deewuñu ah, ñu ma a yàkkamti benn par benn dama ma jénn woon dinaa ko dinaa ko la ma waxoon ca muqaddima ba dinaa ko indi benn par benn tonte ah, sax du yàgg du yàgg daal rek ma jénn ko toppat nag audio yu benn par benn loo xam ne gis naa ne jar na leeral dina ko leeram leer nañ bañ xam ne kan mooy kiy soos ñu xam kan mooy ki nga xam ne dafay defal leneen lu alquran ak ak sunna lu ñaaral bi ci téere bi jawahirul maani dafa ñëw ci téere ba eh, ki ko bind ali alxarazim dox ne وسألته من تجبل كان شيخ أحمد التيجاني نينا وسألته عن تفضيل الصحابي الذي لم يفتح عليه وعن القرب من غير الصحابة فأجاب بقوله اختلف الناس في تفضيل الصحابي الذي لم يفتح عليه على القدم من غير الصحابة فذهبت طائفة على تفضيل الصحابي الذي لم يفتع عليه عن القدم من غير الصحابة وذهبت طائفة إلى تفضيل القطب والراجح تفضيل الصحابي على القدم بالشاهد بشاهد قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى أصحابي على سائر العالمين سوى النبيين والمرسلين وقوله لو أنفق أحدكم مثل أهد ذهبا ما بلغ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيه ولا نصيفه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم واو نينا دفلات جوهر معاني نينا فلاج كي قبل ما شيخ حميم احمد تيجاني ملاج كوتشي نغنى لغي نغنى لاب صحابه بو لم يفتح عليه dañuy njëkk a laaj mooy lan mooy lam yuxta alay lan mooy fatx boobu noonu ñuy war a defu saxaaba ba am ñenn ci ñu ko am te saxaaba ñu amuñu ko mooy lan loolu fu ñu koy fekk ci alxuraan sunna ak lan dalil ban dalil la fu ñu koy fekk ci waxi borom xam-xam yi mu ne ko ni laaj saxaaba boobu nga xam ne moo amul fatx ak ki nga xam ab xutb la ñuy laaj ba tey xutb mooy lan loolu fu ñu koy fekk ci alxuraan sunna fu ñu koy fekk istilaahu ñi nga xam ne ñooy ahlu sunnatul jamaa sahih buxaari muslim fu ñu koy fekk ci téere eh, boroom xam-xamu salafi ma lay laaj ci kon saxaaba boobu nga xam ne amul fat moom ak xut bi ku gën mu daal di tontu laaj bi mu yéeme waaye tontu bi gën a yéeme ti laaj bi nee na ko mu ne ko nit ñi dañoo wute ne dañoo wute ci saxaaba bi nga xam ne amul ak fat ak ci xutb bi nga xam ne moom du saxaaba dañuy déggee ñaari mbir ci dont bi mooy ne saxaaba yi am na ay aqtaab yu ci nekk. saxaaba yi am nañu am nañ fat am nañu am bu ñu fat bëgg nañu indil ñu fan ban téere la ñuy fekk ak ban waxu yonent bi sax la ñuy fekk saxaaba yi nga am fat mu wax ñan la ak ñamul fat mu ne nag nit ñi dañ cee wuute ma bëgg xam sagam mbokk yi jug fan yi dañuy wax ci taqdis arsa ñoom neen dañuy laaj référence lu wax ñu ne téere sàngam fu mu ko fekk léegi ñu bëgg ñu indi ñu ban téere la ñuy fekk ixtilaaf bi ak kan ak ñu wute ci lii nii masala bii nii di masala xutbu akub saxaaba ba amul fatx gu gën ci ban téere ci téere xam-xame lañ koy fekk ñu wax ñu ko ñu dellu fa ñu wax ñu ban téere ci téere boroom xam-xam yi moo tudd ab ixtilaaf ci lii ginnaaw ba ñu leere la kan ñooy saxaaba yi am fatx ak lan mooy fatx ak ban saxaaba moom fatx ak bu ko amut ak ci saxaaba yi ñan ñoo ci nekkoon ñu ci nekkuloon ay ay aqtaab waaye nag nekkoon nag dafa am ñoo xam ne ak taifa yoo xam ne ñoom am mbooloo bu gis ne saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo amuñu fatxa ñoo gën xut bi moo ñoo gëm aqtaa bi ñu koy laaj mbooloo boobu noonu yan mbooloo la ci borom xam-xam leen di fekk ci jinne wala ci nit ñi wala ci mécaniciens yi ci menuisiers yi wax ñu fan lañ leen di fekk borom yooyu wala mbooloo boobu ñan la mu ne beneen mbooloo boo xam ne nag ñoom mbooloo boo toj yémi lañ mbooloo boobu ñoom tamit ñu gis ni sax xut bi moom moo gën saxaaba amul fat ñu laaj mu wàññi tam mbooloo boobu ñan la ci ban téere la ñuy fekk lii nga xam ne waa ji Euh, wax na ko ci ginnaaw loolu nag moom cheikh bi moom mu daal di gis ne moom la xam mooy raajax ca moom mooy ni saxaaba boo xam ne amul fat moo gën a mu daal di indi yoo xam ne euh, indi na ko jàpp ne dalil la ca waaw oh, léegi laaj rek balaa ñu ñëw sax ci audio bi ci topp ngi leeral euh, fadlu saxaaba na dina jar ñu indi ko dañuy laaj ñii nga xam ne ñooy fan ñi ne ñoom dañuy yëngut ci xam-xame yee te gëm lii ñu gëm nii bokk ci tarixa bi ñu indil ñu ab téere ci téere boroom xam-xam yi bu indi ixtilaaf bii nga xam ne seen cheikh bi tudd na ko man nit ñu téere ci boroom xam bu ñuy définiral di ñu indi di ñu indi taarif lan mooy saxaa bu ak farq bokk lan mooy saxaa bu ak bu fat ak ngeen ñooy aqtaab ci saxaabi wala mooy lan mooy xutb ak fu ñu koy fekk ci alxuraan sunna fu ñu koy fekk téere bu ñu xam ne ñu indi ñu définition boobu ñu mun koo ñu mun ko am surtout na li mu gën a soxla mooy téere référence bu ñu indi ixtilaaf bii nga xam ne mbooloo ci borom xam wala mbooloo boog ci nit ñi maanaam ñoo xam ixtilaaf moom ci xam-xam borom xam lañ ciy juddu lañ ciy jublu ñoo ñu ñooñu benn téel nga fekk ak mbooloom borom xam ñan la euh, ngir ñu mën caa dellu teg ci sunu teg ci sunu baaraam baraka